jaajëfal ko bu baax a baax Ibrahima Khalil Diémé moo tataan yooyu le euh, kaddu mu nekkoon ñu kaddu yu bu euh, mbay Mamadou mu nekk euh, démb ñu doon màggal li nga xam ne moo jëm ci liberté de la presse taskatu xabaar yi démb ca Cap foofu moom mooy waa coordination des associations de presse doon janoo ak taskatu xabaar yi ngir àddu ci journalistes yi nga xam ni jamono ji teg nañu leen loxo ñoom fi mu ne eh, ci loolu lañ taxaw bu fekkee yéen peut-être yéen a ngi xeex candidature Macky ci élection tànneefu njiitu réew baatum 2020 24 ñoom jamono ji li ñuy xeex mooy journalistes yi ñu teg loxo jamono ji ñu bàyyi leen. waaw xam nga démb sax euh, bi ñu def conférence de presse wax nañ ci. Mm-hmm. Euh, bi ñu commencé d'ailleurs euh, saluer mémoire Mame Less Camara. Mm-hmm. ak Malick Ndiaye mais naxarlu li nga xam ne mooy dal journalistes yi. Mm-hmm. parce que bu fekkee dañuy célébrer journée internationale de la presse. ci monde bi journalistes yi takku di fête fii Sénégal journalistes yi nekk lu ñu mun lu dul ànd ak ñoom ci naqar boobu. Mm-hmm. Euh, fàttali rek ne euh, journalistes yooyu ñu ngi fekk ci kaso bi également ak ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne comme euh, Fadilou Keita ak. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Oumar Diagne ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ ne ay liberté d'opinion mm-hmm. dañ dañ ko salfaañe. donc liberté détenu politique hmm? ñi ngeen di woowee détenu politique. voilà journaliste yi ngeen leen ci boole wala. waaw certainement. waaw ñu bokk ci détenus politiques yi. journalistes yi waaw d'accord donc ay détenus politiques parce que ay ay la. boo defee délit d'opinion ñu jàpp la yow dé détenu politique nga parce que yow waxoo dara lu sa xalaat. waxoo sàcculoo reyuloo. Hmm? ma ne ma amul benn détenu politique. ah mais xam nga Macky moom euh, soit soit dafa xamul soit dafay euh, li ñuy wax manipuler xam nga moom dafa yomb. Mhm. Euh, donc li nga xam ne moom moo am nga wax leneen loo xam ne mu nga safaan ba. boo ku nekk mën na ko mais de parce que ki nga xam ne dafa poste jëlal kaayu Fadilou Keita Fadilou Keita dafa ne yaakaar naa ne rey ñu sama xarit hmm. kee taxaw ci télé ba ne rey nañ ko nga jàpp kii bàyyi kël ensuite ci post yi nga xam ne ay euh, Facebook ak yooyu nga bind sa ay ay euh, euh, WhatsApp nga bind nga wax ñu ñëw jàpp la. loolu dafa nekk nga joxe sa opinion daal maanaam nga joxe sa opinion. waaw nga joxe sa euh, opinion ci situation telle ou telle situation. par exemple bu ñu jëlee situation Bassirou Diomaye Faye ñu ngi wax taskatu xibaar yi waaw mais euh, de tenue politique bi nga wax moo tax may yaatal foofu euh, Bassirou Diomaye Faye qui parle en tout cas bi nga xam ne mu ngi duut baaraamu tuuma taxawaay bi nga xamante ne yenn magistrat ñu ngi koy am ci biir réewu Sénégal ñu teg ko loxo donc situation yi ñooñu ngay wax ni de tenue politique. voilà exactement ñooñu ay tenue politique ak ñu bari ak ñoo xam ne da nga ñëw manifestation di manifester par exemple man joxe naa exemple euh, am na xale yoo xam ne ni su dëgg lañ bokk dañ ñëw jàmm gën troisième mandat tey ci ngoon ci ëllëg sa ñu dem benn euh, kii ci Pape Alé Niang libéré Pape ñu jàppale. ñu jàppale libéré ñu jàppale deux mois tëj kaso loolu dina politique cest dafa am ay ay droit yoo xam ne élémentaire yoo xam ne nit dañ ko war a bàyyee manifester wax wax sa xalaat wax sa xalaat ci politique ak ci politicien. loolu liberté d'expression. day saf sax jaay doole nag. voilà risque de suñu politique. waaw donc loolu bu ñu la ci jàppee rek. jaay nañ la doole xañ nañ la sa àq ak sa yelef euh, piéti nañ piéti nañ sa liberté d'expression. te loolu warul ci réew moo tax Sénégal dégringolé. Mm-hmm. évidemment de xaw ma ñaata place 31 place. Mm-hmm. évidemment dans le classement mais Sénégal fi mu toll ci wàllu mm-hmm. démocratie. bu ñu demee ba ci benn manifestation ñu jàpp presque cinq cent personnes juróomi téeméeri mu dugal leen kaso. nga xam ne Sénégal y problème teg loxo fanweeri nit ñeen fukki nit da doon nekk problème Sénégal. Mhm. ñu ngi nekk ci presse bi dañ doon wax quarante personne la ñu jàpp da doon ngand ci ñun. Mhm. mais Sénégal léegi yegg léegi ci ñuy jàpp cinq cent personnes. Mhm. ci une seule manifestation te jurul coow. mais mais mais mais bu loolu passé na détenu politique. loolu loolu musta am ci histoire Sénégal. jàpp nit ki ci lu mu posté yow déjà da nga koy yëddu. yow yaa dem ci page hmm. parce que chacun est directeur publication ci page am bi que Facebook permettre. Hmm. yaa ko yëddu dem ci page am ba noppi ni ko li nga bind neexuma. ni nga ko waxee neexuma parce que da ngaa tonki da ngaa tonkee mais kañ la Sénégal dellu gannaaw ci démocratie. Hmm. ba yow amoo droit joxe sa xalaat ci nekk nu magistrat yi ci dëkk bi. te nga am sañ-sañu joxe sa xalaat. ci gestion Macky Sall mi jiite magistrat yi. kañ la Sénégal dellu gannaaw amoo sañ-sañ joxe sa xalaat. ci ni police wala gendarmerie doxe te nga am sañ-sañ joxe sa xalaat ci gestion Macky Sall mi leen jiite ñoom. jaay doole gi. ak arrêté bi ñu arrêté nit ñi ci couloir yi. benn coup de téléphone booy ko waaye au loolu moo war a dakk Sénégal. moo tax toujours damay demander Birahim xam na ne yàgg naa ko demande stage magistrat kaso da cee war a bokk. parce que boo xamee ne sa benn signature doon mooy téye nit ki privé ko liberté. Mm-hmm. yow sa stage ñam kaso da cee war a bokk. parce que bu ñu xamoon li nekk ci biir kaso bu ñu xañoon bu ñu xamoon li nekk ci xañ nit ki liberté. Mm-hmm. du ñu ko fowee alors ñu jàppoon ci manifestation 16 mai ba léegi. xaw ma 16 mars yi. Mm-hmm. lu ñu leen toppee ba léegi ñu ngi ci kaso bi kii kii mu ngi. dañ yóbbu li ko di ko yóbbu di ko naam euh, ki ñu doon yóbbul doomam kaso Tiwaawan. ay wuñ ko manifestation de dañ ne ko yoon bii ngay jaar ñu génn aw yoon bii jaa jaawale itinéraire kese mais loolu du ñu ko dénoncé est-ce que mën nañu fexe ba du ñu ko dénoncé ci réew bu am démocratie te ñoom ñu fal leen démocratiquement ñoom ay carte lañ leen falee mënuñoo fexe ba lañu ñu doon xeex ñoom bi ñu nekkee ci opposition bi muy lii li Mamadou Mbodj di wax sànq M23 bi ñu koy sos te ñoom ñu bokkoon ci ñu ko doon xeex. la ñu doon def Ablaye Wade wala ñu koy wax mënuñoo fexe ba du ñu leen ko wax wala ñu koy def gis nga ñu jiite réew mi moom ñu réew mi de dañuy folleeku ñu leen remplacer leen état dong moo fi des te état xamul tax existence nation la mooy tax ñuy wax état dañu dellu soit seen xel yi. Mm-hmm. arrêté bi jàpp bi métti na surtout ci kaw journaliste. est-ce que justement ci état boobu <clears throat> sama sama laaj ci Mamadou Mbodj ak F24 mm-hmm. est-ce que bokkul tamit ci seen rôle. ngeen dooleel suñu institution suñu nee suñu institution nee loi mooy tax ba lépp baax bu loi baaxul wala ba ñu topp loi euh, léppay na sax est que tey tamit yéen bokkul ci seen rôle